asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ñu delloo nuyuwaat leen gërëm leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV rawatina seen programme jigéen saa su nekk ngeen di si ànd ak seen doomi ndey Linguère comme ni ñu koy faral di defee rek àjjuma bu nekk ñu andi ab boo xam ne askan gi dina ko jëfandikoo te am nañ yaakaar macha allah comme fan yi si lu ñu nekk rek ñëpp xam nañ ko. li nga xam ne nag moo lëmbee àdduna bi rawatina nag fii si réewi Gambia di feebari coronavirus bi naam ajuma bee ñu génn sa ñu ko doon waxtaanee waaye doon na ab waxtaan boo xam ne nag duñ si em si ajuma boobu rek faawu ajuma yi ñëw dineen ko waxtaanee ndax nit ñi gën a mun a xam feebari mbas boobu noonu ñu xamee si coronavirus waaye balaa ñoo gën a sori rek macha allah ñu ngi rafetlu KMC seen liggéey rafet na lool ndax boo ko seetloo gota yi nga xam ne nag ñoo nekka si tundi KMC wax di gaane yàlla ñu ngi koy defaraat même baax waaye li nga xam ne nag moom a si jaaxal rek mooy mbalit bi nga xam ne ñu ngi koy teg si boori gota googu noonu am na fi mi fan yoo xam ne ba tey génnaagu fa te am naa yaakaar ne nu mu fay gën a yàggee rek mbalit yooyu dina delluwaat si gota bi wala mu delluwaat si biir marché bi wala mu delluwaat si nit ñi sa dëkkee kon nag ñu ngi ñaan KMC naam seen liggéey rafet na sa li ma xelaatoon mooy ne xëy na bu mbalit bi génnee si gota bi dina am moto boo xam ne dafay taxaw si boor boobu rek di moment nga génnee si gota bi rek dugal si moto rek mu dem tuur soo ñu ngi leen di ñaan rek ngeen gëstuwaat loolu noonu ndax fi mu nekk wax diggaa neexee la nit ñaa ngi see déggaat moto yaa ngi see taxawaat te dafa nekk mbir moo xam ne la tey bi maa romba sa maa ngi yoo xam ne mbalit baa ngi nii ñu ngi toog boor boobu noonu di jaay te doon na mbir moo lu doy waar la comme dañ ne seetal kon loolu leen ko seetaat bu baax a baax su loolu passé nag mbokk yi du ñu def dara lu dem ak birek ànd ak ñii nga xam ne nag ñooy mbay famille rawatina si kii nga xam ne nag mooy abu ak faafa ñu wéy lu neex jëmale ko si loolu nga xam ne nag mooy feebari coronavirus bi ñu seetaan ko bu dellusiwaatee continuer lu nga xam ne nag mooy programme jigéen Fafalito. Watums, naka suba si eewu suba sa ngi nii. ah macha allah. yéen da ngeen fajaru sax tay. Wa ligay rek ndax corona bi mom fimne fokk ñuy setal. ah wa wa wa. Wa. Lol amna ci solo torop. Wa wa. setal bi amna ci solo bu baax. Wa dana. abu. ewu ci lo ne. Ma ngi ni rek. waa foo nar a génn nii tey. ceebi suweer rek. La. La na ra def tay. non non non tay duma ndeki. Bu ndeki. Tay dama xifal. dama teela dem marché nak. jëlal tufaa la moo raxas tuh yaa ngi ci raxas bi maa ngi ci raxas bi waaw kon xaaral ma toogee ne waaw baax na léegi léegi ñu dellu sàkku ñaan di ñaan yàlla mu nangul ñu lépp luñ ko ñaan go Aduna. Go, Rona, Aduna. He got the whole world in his hands. Mommy, dear, Aduna, be up, Jai Lohom. Senegambia, Deklulen, Mawaklen, Corona corona bi dem dañu na di family of adults and kids stay at home to reduce the risk of infection and spreading the virus keep calm and please stay at home sa kër ndax fagaru gën mbokk yi bu ñu joggé si break boobu noonu nak ñuy gërëm abu an fafa manam ci gatal la may family wax ne lu am solo jëmalé ko ci loolu nga xamné nak moy fièvre coronavirus bi ñoom ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla barkel seeni baat di nuyu seeni kilifa nga xamné nak moy seen papa nga xamné wax di ga neex yalla momit benen daanan la ma lool say bu ma gisee rek di ma advice kon ma ngi koy ñaanal gu fa nak wir way tamit di ñaanal di nuyu ko nga xamné tamit moy seen yaay bu loolu passé nak mbokk yi comme ni leen ko waxé rek tay dañu waxtané loolu nga xamné nak moy coronavirus ajuma bee ñu génn ñu ngi ko doon waxtaanee waaye ba tey doon na mbir moo xam ne comme dafa lëmbee àdduna baax na saa su nekk nag ñu koy waxtaanee pour askan gi gën a xam loolu nga xam ne nag mooy feebari coronavirus bi si biir kër gi nag tey am nañ fi Aysatu M Diallo moom nag mu ngi bàyyeekoo si kuréel bi nga xam ne nag ñoo amee wàllum wér gu yaram gi fii si réewi Gambia waaye ba tey suñu naataango bi nga xam ne nag mu ngi liggéey ak ñun di uyoo si Ansoumana Eso Ñaasi sama xarit sama rakka wax diggaane yàlla ma yàgg di liggéey ak moom depuis si radio bi moom nag yàlla dafa defoon mu bokk si ñi nga xam ne nag amoon nañ feebar feebari coronavirus bi ba jamono yi nag dinañ ko am si biir programme bi jigéen mu am lu mu waxtaan ak ñun jëmale ko si feebar boobu noonu su dee mun si line bi rek ba ñu ànd ak moom allo eso waaw allo Linguère maa ngi la nuyu bu baax a baax a baax waaw jërëjëf ci li ma dalal ci programme bi am naa mbégte kontaante lool pour bokk ci programme bi ah tey nag ñu bugg a waxtaanee mbiri feebari coronavirus bi nga xam ne nag lëmbe na àdduna bi waaw mbas mi mu dafa nekk loo xamante ne ci jamono bi ñu nekk lembee na àdduna comme ni nga ko waxee ah, te mu nekk ah, feebar bi nga xamante ne feebar bu bu doy waar la. Ah, te nag bëri na tey ci ay million ak ay junne ak ay téeméer téeméer nit yi nga xamante ne ci àdduna eh, ñoo ko am nag yàlla def ñeneen jaar nañ fa ñàkk seen bakkan am ñoo xamante ne wér nañ am ñoo xamante ne ba tey ñu ngee faju ah, waaye nag sant yàlla gannaaw bi nga xamante ne may nañu kàttan ah, pour mu ñu faju ba génn ci war a mën a ñoo bokk ci li nga xamante ne moo di liggéey ak programme yi nga xamante ne lañ nekk di am ci suñu barabu liggéeyka dëgg la su ko defee ma laaj la rek si lu gàtt mooy ne ama feebari coronavirus bi yow bi nga ko njëkkee dégg ne am na fii si àdduna bi loo njëkk xelaat. waaw xam nga man suma liggéey mooy tasum xibaar te ah, yàlla dafa def dama dee topp lool ah, xibaar ah, ci li nga xamante ne moo nekk di xew ci bitim réew. gannaaw bi nga xamante ne nag nguuri réew China génnoon nañ wane nañ ñoom seen réew am nañ foofu bi la jàngoro. ñu gis tamit ne mbootaay xeetu àdduna bi nga xamante ne moo saytoo wàllum wér gu yaram ñu gën leen a xamee ci WHO ñoom it génnoon nañ pour xamal àdduna bi ne ah bi la jàngoro nag naan dëgg la mu ngi am China waaye ci anam bi nga xamante ne ah, ah, la moo la moo wàllee ah, dafa nekk loo xamante lu doy waar te nit ñi war nañ cee mën a bàyyi seen xel mu taxaw nag man tiitoon naa ndax xam naa ne ci façon liggéey bi nga xamante ne lay def dina dina su ma am na nu moo demee rek dinaa bokk ci ñi nga xamante ne. Ah, dina am na naka bile eh, jàngoro ndax ñëpp xam nañ ñiy liggéey ci wàllum ah, li nga xamante ne moo di tasum xibaar ci anam yi nga xamante ne la ñu liggéey. naam su ko defee maa gën a continuer laajte rek comme ne bi yàlla defee ba feebari coronavirus bi dugal si biir réewi Gambia. ñu toog dégg ne am na kenn si taskati xibaar yi nga xam ne nag mu ngee liggéey foofu noonu sa QTV moom de am na feebari mbas bi ñu xamee si coronavirus. ma bugg laa laaj yan màndarga moom nga doon fiir si sa yaram bi ba mu jaraloon na nga dem foofu nga xam ne nag mooy lopitaan pour ñu teste ba xam ndax am nga feebar bi ndax amuloo feebar bi. waaw man nag gannaaw bi nga xamante ne kenn si ñoo liggéeyal yàlla dafa def moom ñiy liggéey ci wàllum faj ci réew mi ah, mu di jawriñ bi ñu dénk wàllum lii di wér gu yaram dañ déggal ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne am nañ ah, jàngoro coronavirus ma it ma bokk ci ñi nga xamante ne jóg nañ. pour dem gestu ji def test xool ndax jàngoro bi mu ngi si man wala am déet bi maa dem nag pour dem test euh, jamono bu amoon benn mandarga waaye nag gannaaw bi nga xamante ne jël naa test bi ba pare euh, bañ déggal ne bokk naa si ñu ko am bañ ma yóbbu fi ñoo fajee am na nag ñetti fan yi nga xamante ne waaw gisoon naa yenn ci mandarga yi te amoon naa ay teexa teexa tuuti nag waaye nag sant yàlla ba mu bëri. su ko defee ñu laaj la seen nekkin foofu noonu fi leen bëroon. waaw Linguère euh, fii nag nga baal ma damay bugg rek sant ñi nga xamante ne ñoo di euh, management bu Q Group ak Q TV nga xamante ne tey ñun ñooy ñooñu ñooñu ilif euh, ñu ñu nekk nit yoo xamante ne wax dëgg yàlla man ak su ma yeneen natango yi fa nekkoon yàlla ak ñoom ñàkkuñ dara ñàkkuñ woon dara bu ñu fa nekkee manqué luñu woon dara du ci wàllum li ñoo dundee du ci wàllum faj garab ak yu demee noonu. wax dëgg yàlla dañuy taxaw te nag jàppale woon nañu lool ba gis ne daal manqué lu manqué luñ fa dara lu jëm tamit ci wàllum faj dañuy fa taxaw lool jëndal ñu garab du lekk du naan du dara manqué luñ fa woon dara wax dëgg yàlla foofu nag biñ fa nekkee man nag aw foofu ay texa texa waaye xam naa ne bokk na ci li nga xamante ne yaakaar naa nguur. war nañ koo mën a bàyyi xel mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk di faju ci bi la jamono te ñu denc leen ci ay place mooy treatment centre yii ah, ndax gisoon naa ñeena si suma ah, naataango yoo xamante ne buñ fa am na ñeena suma naataango yoo xamante ne ñu fa nekkee soxla woon nañ di jëm ci wàllum garab ak yu demee noonu waaye dafa jafe woon lool te ñu am nag ay noos yi fa nekk ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla ñu mun seen liggéey lañ ah, te ne nekk nit yoo xamante ne ñu sawar lañ waaw kon nag ganaaw loolu euh, li ma cay rek mooy ne nguur ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi xam naa ne ñu ngi taraay waaye nag li jëm ci wàllum euh, garab ak yu demee noonu ñun jamono bi ñu faa nekk nag garab bëriwul fa woon te euh, bëgg naa ñu bàyyi xel loolu ci treatment center yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi xaw ma yeneen place waaye ñun fu ñu nekkoon garab nekkut fa woon ba nu ñu faa génnee xëj na nag garab mu fa léegi waaye. ma bëgg rek ñu bàyyi ko xel euh, dimbale ñi nga xamante ne ñoo fa nekk di liggéey. am na solo su ko defee nag ma laaj la ñi nga xam ne dañuy faral di wax ne feebari coronavirus bi amul. waa li ngeen laaj na ma lu am solo mooy nit ñi am na ñoo xamante ne ba tey gëmuñ ne lii lu am la bokk na ci lu tax bee suma maas yi ñuy gën di wax mooy pour nit ñi bàyyi seen xel ndax li ma gën a metti ci li jëm ci wàllum coronavirus Gambia ci fi politique ah, daf si bokka lu bëri daf si laxasu. nara agis ko koo xamante ne man gëmuma ko na foog ne gi politics am na koo xamante ne man gëmuma ko ah soj rek la wala malaria la du loolu li bu nek sa yaram di nga hamne amna am na lu nek sa yaram yow sa di nga ko xamal sa bopp te di nga hamne li du malaria li du soj soj bi ñoo wax nak bokk na ci mandar gay nga xamante soko amé dina feeñ yow waye di nga xam li nekul lu normal kon lima wax rek moy nit ñi nañ bay sen xel Ara sa bop mo gën ngay faju bul xaar lolu fekk la si te li xew moy yow xëy na yàlla dina la dimbalé bula la dalee du la sonal waye ki nga xamantene mu la jege mo xam sa mbokk la moo xam sa xarit la mun na dal kenen sonal ko kon li gëna am solo moy ñu fexé daal gis na nit yépp ar seen ndax tey man mënuma bañ né am ndax du ma docteur du ma ci walum fajj ah tay mënuma bañ né feebar bi ah, amna ndik ndig dalul ma lo waruloo xaar loolu fekk la ci ndax man mi nga xamante ne bokk naa si ñum dal xam naa ne lii lu am la te xam naa nu mel métti na torop am na ñoo xamante ne tey jëlee nañ leen seen kër yóbbu leen ah, pour faj faj leen yàlla def ñu des fa ah, mu nekk lu métti kon maa ngi ñaan nit ñi ñëpp ñu bàyyi seen xel toppal loolu nga xamante ne la ñu jëriñ bi amee wàllu wér-gu-yaram ah, di digg askan gi nañu mën a aar seen bopp si jàngoro bi nga xamante ne moo di jàngoro coronavirus. am na solo li ma lay mujjee laaj nag mooy jamono yi fan nga nekk yaa ngi si ful na bere ndax génne nga fa dugal si kër gi. ah waa jërëjëf jamono bi moom wax dëgg yàlla faju naa wér naa te naa liggéey ah, mu nekk loo xamante ne mbégte kontante la ci man kon ah, ni ma ko waxee rek ndax neexut neexut ci xol te yombut ah, nga nekk di faju xam nga ci feebar boo xamante ne jamono bi lëmbee na àdduna te wax bi bari na lool. Euh, ndax jamono bi nga xamante ne ñu ngi xee pour génnee euh, wala dàq nag bi la jàngoro ci réew mi ñun ñëpp war a ànd nekk benn kon damay ñaan rek nit ñi ñu fexe ñu bàyyi seen xel ñëpp ànd nekk benn ñu bàyyi politique bi tegee ko boor wax bi yëpp ñu bàyyi tegee ko boor ak lépp loo xamante ne euh, dina jaxase xel yi askan gi nañu mën a aar suñ bopp ba gis ne jàngoro bi génne na fi ñu delluwaat ci live comme ni mu daan mel Gambie bi ñu xam ak ni àdduna meloon ni neexee woon ni ñu mën delluwaat di dundee noonu jërëjëf li waaw su ko defee nag ñu gërëm ko bu baax a baax kooku mooy Esso Niassy comme di leen ko di leen fàttali rek na seen programme jigéen la ay sata ñu bàyyi la nga nuyoo na moo nen la jërëjëf Anta Linguère maa ngi nuyu mbokki seetaankat yëpp ku nekk ci turam ak ci sant santam mm-hmm. man Aïssatou Diallo maa fi ñëwaatee tamit jógee health promotion ministry of health a ah, kay mm-hmm. bés bu nekk jamono yi ñu ngi dégg wax di gaane yàlla Gambia am seen coronavirus mu ngi gën di éeg mm-hmm. yeneen saa ñu dégg ne ñaar téeméeri nit am ñetti eh, ñetti nit faatu nen si dégg nen si am na ñoo xam ne naka ñu ngi leen di faj ba jamono bi ñu toll ni am na ñoo xam ne macha faj nañ leen benn dellu si suñ su suñ eh, seen kër yi mhm. léegi dañ bëgg laaj la rek jamono bi fii si réewi Gambia ñaata nit ñoo fi am feebari coronavirus ok jërëjëf Linguère si jamono gi fuñ toll nii luy dem si junni ak juróom-ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñaari nit moo nekk ñoo xam ne confirmé nañ leen positif euh, si coronavirus ci biir ñooñu ñeneen ñeneenti téeméer ak benn benn bi boobu nekk na ñoo xam ne euh, wér na gars yi ñibbi nañ si seen kër gi waaye ba tey juróom benn fukk ak ñett moo nekk nit yoo xam ne faatu nañ ci coronavirus si biir Gambie fii nii. dëgg la hmm. léegi dañuy di dégg rek parce que dafa wara a leer naam hmm. feebar bi am na gëm nañ ne feebar bi dafa am. waaye yeneen saa yi nga dégg ne téeméeri nit ñoo am coronavirus dañ bëgg a xam téeméer yooyu noonu yan dëkk la dee nekk su ko defee dëkk yooyu sax dinañ gën a mën a bàyyi seen xel ne dëgg dëgg naam feebar bi bëri na si suñ dëkk léegi neen seet naka la ñoo jéem a aaree suñu bopp si feebar yooyu noonu su ko defee lim yi ñu jox fii rek ñu mën a xam yan dëkk ak yan dëkk ñoo am coronavirus ak ñaata nit ñoo fa am coronavirus waaw si tunda bu nekk euh, si Gambia bi fii léegi coronavirus am na fa waaye boo ko seetloo si euh, western euh, region bi moo nekk west coast region bi ñun su ñëwee ci health dañ am west coast one ak west coast two moo nekk diggante Banjul dem ba Kallaaji soo ko seetloo nag coronavirus gi foofu la gën a amee doole sakatuma ci biir western one bii ni moo nekk diggante fii nii dem ba Lamine ñun Eh, health wise foofu moo nekk western one region soo ko seetloo nag amut si dëkk yooyu noonu benn benn ngay gis dëkk boo xam ne amut coronavirus waaye soo ko seetloo si jamono gi Banjul moo nekk dëkk goo xam ne moom la coronavirus bi gën a laar ci biir Banjul bu ndaw boobu noonu téeméer ak juróom fukk ak juróom ñetti nit moo nekk ñoo xam ne am nañ eh, coronavirus bi si biir Banjul mhm. soo ko seetloo nag comme nu ma la waxee dëkk yëpp eh, almost am nañ ko Bakaw am nañ case ba kaw ñu ngi am luy dem si 46 cases euh, mooy euh, ñeneen fukk ak juróom-benn. Mhm. Euh, kootu am nañ juróom-ñetta fukk ak ñett ak ñetta Kololi am nañ juróom-ñeneenti case Kër Sëriñ am nañ fukk ak ñeneenti case Bijilo am nañ fukk ak benn case Brusu bi am nañ ñetta fukk ak ñeneent Brufut tamit fukk ak juróom-benn foofu si Tànje ñaari nit am nañ ko Jaabang ñeneenti nit Tuujeer ak ñetti nit Kunkujang E, juróom ñaari nit e, saañang juróom benn gunjuur ñeneent e, kiti ñetta birkaama juróom ñetta fukka ak ñaar bu sumbaala am nañ ñaar fukka ak benn manduwaar am nañ ñaari kees faraba banta am nañ benn baafulooto am nañ ñaar faraato am nañ fukka ak juróom ñeneent yundum am nañ juróom ñetta foofu si ol yundum tamit juróom ñetta wulinkam am nañ ñeneent manduwaar am nañ ñaar Lamine am nañ euh, ñaar fukk ak juróom-ñetta euh, Lamine Daranka am nañ benn euh, foofu sa London Corner am nañ juróom Old Josuwang am nañ fukk ak juróom-ñetta Baara am nañ ñeneenti kees SEW am nañ fukki kees Kairaba Avenue fii am nañ benn kees Cape Point am nañ ñeneent foofu sa am nañ benn Bakalaar benn Neema Kunku foofu ci ñoomi am nañ juróom-ñaar. si tanunku am nañ benn kees Lamine ñoomi am nañ euh, fukk ak benn foofu ci Albreda am nañ ñaari kees euh, Jali am nañ benn Buyaam am nañ benn foofu ca Keneba tamit am nañ ñeneen euh, Kamfenda tamit am nañ ñaar si jamono bi dëkk yooyu yëpp yu ma la limal fii nii yëpp ay cases jógee na fa comme nu ma la ko waxee Western one bi mooy nekk diggante Banjul ba lamin ñoo foofu la. soo ko seetloo sa si numar yi di eh, nomba yi di nga xam ne foofu la foofu la uppee daal ci jamono guñ toll nii waa loolu am na mm-hmm. solo su ko defee lii moom xam naa su ngeen sax di ñëw wig bu nekk mm-hmm. si télé bi ngeen xamal askan gi dëkk yi nga xam ne naka ñoo amee feebar bi mm-hmm. a a a a si la bëgg a laaj ay satu mooy feebar bi soo ko demee ba am ba ñu la faj ba nga dellu sa kër naam garab amul sax waaye li faral di wax xëy na bu dee sa boppa baa ngee métti dinañ la jox garab bi boppa bu métti bu dee sa yaram bi am na loo see yëg dinañ la jox garab bu koy seddal waaye dañuy faral di wax ne nag uh, fi gars yi di fan uh, nekk maanaam fi ñu leen ber mhm. amul benn garab boo xam ne nguural lañ koy jox ma bëgg nga <laughs> andi foofu ab leeral ah uh, boo waxee loolu <laughs> man dinaa xaw a jaaxle tuuti because foog naa ne suñ treatment centre yëpp war nañoo am garab because nguur gi joxe nañ xaalis boo xam ne war nañoo jënd bagage yoo bagage yi pour faj ñi nga xam ne ñoo fa nekk comme dëgg la ñoo xam ne amuñ symptômes ñu doo leen mun a jox garab because dara métti wut leen soo ñu mais bi su nekkee vitamines mu ngi fa nga jox leen vitamines yoo xam ne dafa gën a dëgëral uh, seen soldaar yaram bi. Mm-hmm. waaye ñoo xam ne am nañ symptômes ñoo mooy ne uh, feebar bi am na uh, seen ay mandarga feebar bu génn ci ñoom. by right war nañ leen a jox parastamol su nekkee boobu wala anything loo xam ne daal mun naa génnee seen métit bi moo nekk pen killer bi ba pare war nañ leen a toppatoo tamit jox leen lekk toppatoo bu mut loolu war na waaye bu demee nag ba nga xam ne ñu fa nekk parce que nekkuma fa mënuma xam lan moo fa nekk waaye bu dee dem na ba ñu fa nekk ñoo xam ne jaar nañ si wax nañ ne lii amut euh, kon man loolu <laughs> euh, waaw jaa dina ma xaw a dina ma xaw a jaaxal tuuti parce que xam naa ne euh, waruloo téye nit mu am méttit te joxuloo ko joxuloo ko garab dëgg ko defee tamit ma laaj la rek because lii jamono bi ama comme li ñuy faral di wax rek ñu bëri ñoo am feebari mbas bi mm-hmm. te ñu bëri ñu ngi leen ber mm-hmm. man am na si ku ma kool sa ku ma xam te dafa am mm-hmm. feebari mbas bi jamono yi mu ngi foofu noonu waaye nee na sa comme su complet nee dafay saxat dafay jafe lool pour mu am garab te ñu ne ko ëllëg neen garab su ëllëg su gisee keneen kooku ne ko gannaaw ëllëg dinañ la indil garab kon dafa mel ni mbir mi comme yéen fa te ñi fa nekk ñu koy dunda defe naa war naa jot léegi ngeen mm-hmm. dem laaj ñi nga xam ne ñoom ngeen bér foofu noonu mm-hmm. lan mooy seen problème ngeen mën a xam gars yi seen problème ndax soxla neen ndimbal boobu noonu waaw loo loolu loolu loolu dëggal la euh, parce que xam naa ne comme ni ma la ko waxee rek euh, warul nga téye nit mu am méttit euh, fajuloo ko bàyyiwuloo ko mu dem kira mu mu mu faj mu faj boppam foog naa ne nag mi bi si ay issue seen own problème moo fa waaye yaakaar naa ne programme bi ñëpp ko dee seetaan ba pare tamit euh, bu ma demee ci office bi su ma deeloo euh, dinaa dinaa ko euh, waxtaanee suma suma senior ñoo xam ne ñooy toog ci place yu mag yi di waxtaanee wala di di coordinate affaire si mhm. su ma demee dinaa ko fa égal waaye foog warut daal nga téye nit te fekk fajuloo ko man loolu surprise la si man sax ne nit dina feebar dem am métit nga mm. téye ko benn place te joxuloo ko garab. dëgg la mm-hmm. ñu bëri tamit ñu ngi complain ne ñoom. Mm-hmm. comme suñ leen xamalee ne dañ am feebari mbas bi. on mm-hmm. a dañ dee jékki-jékki dem ñu ber leen. am na si ñoo xam ne comme lu ma wax rek ñu ne ñoom dundee gis garab mhm. waaye comme ñenn a dimbale am na fu ñuy kool ba garab ñoo fekkaleen foofu noonu mhm. kon dafa mel ni am garab da mhm. leen foofu noonu defe leen di cek balaa ñu leen di bàyyi pour ñu dellu seen njaboot bi waaye am na dem ne leen ñu toog seen kër yi ñu make sure ne daal after two weeks ñu dellu si waat soo dama bëgg a foofu tamit nga leeral ko uh, uh, demoon na ba nga eh, si gannaaw tuuti ministry of health wax ne because soo ko seetloo time bi kees yi dañ bëri dañ bëri dem nañ ba nga xam ne ay thousand eight hundred soo ko seetloo jamono bi thousand four hundred nit ñoo xam ne ñu ngi ko am demoon nañ bañ ne ñoo xam am nañ ko te amuñ mandarga te ñu am place boo xam ne mun nañoo self isolate ñoo xam ne comme dëkkuñ ci njaboot eh, kër goo xam ne dafa bari nit wala su nekkee ne dëkk nañ am nañ mun-mun bi ak kattan bi wala eh, am am bi daal pour ñu mun a nekk si isolation place ñooñu waxoon nañ leen eh, xibaar génnoon na pour ñooñu ñu toog seen bopp ñu self isolate waaye nag self isolation boobu dafa am conditions comme nu ma la ko waxee conditions yëpp dinañ ko dem seet place bi seet noonu lu because seen doole antal na ko loolu tamit demoon na ba am waaye buñ demee tamit si place bi ba xool ne yow catégories yooyu noonu lu ñuy lu lu lu lu waa bu la war a mun a eh, toogloo sa kër yooyu yëpp amul fa mhm. doo mun a self isolé ñooñu noonu dañ leen dee téye boobu am na eh, ñu ko am nañ am nañ eh, steps yoo xam ne yooyu lañ dee follow pour nga mun a self isolé sa boppa dëgg la am na solo waaye mhm. ay surtout dëgg dëgg da ngeen am liggéey liggéey bu liggéey bu mag sax <laughs> naam soo gisee fi ngeen daan ber ay nit ñi nga xam ne ñoo amee feebaru coronavirus boobu noonu foofu mm-hmm. léegi fees na mm-hmm. ba dégg naa sa jamono yi na ngee dem si hôtel yi mm-hmm. di dalal foofu noonu ay nit ñoo xam ne ñu ngi amee feebari mbas bi mu doon lu métti si loxo nguur waaye dama gis ne daal comme fu mu nekk nii nit ñi bëri nen understand nga feebar baa ngee gën a bëri léegi di moment yow ñu ceg la daal gis ne yaa ngi symptômes si nga xam ne moo nekkoon si yow mhm. nekkaatul si yow dañ lay bàyyi nga delluwaat sa njaboot mhm. naam di nga ànd ak ñi nga xam ne sa ñoo amee wàllu wér gu yaram gi ñu seet ba xam mhm. ndax yow fi nga nekk uur na waaye Gambien bi new na lool pour nga gis koo xam ne moo dëkk moom kenn fu jaar mu dëkk ak yaayam papaam wala maamam soo dafa mel ne jamono bi fu mu nekk ne nguur sonn na ba suñ gisatul symptôme daal li gën si yow mooy nga dem fekk ñi nga xam ne nag ñooy say njaboot foogaloo ne loolu dafa <laughs> dafa dafa dangereux eh, waaw dangereux na waaye li nga nga comme soo ko seetloo coronavirus dafa nekk loo xam ne du Gambie rek tina dëkk yoo xam ne sax ñooñu uppa doole moo tax eh, eh, comme suñ fausse programme buñ amoon moo tax ma doon wax Gambien ñi ne ñu bàyyi suñ xel amuñ doole boo xam ne mun nañoo contain euh, coronavirus bi su demee su su num nekk di demee nii bu continuer nii rek buñ moytu waa dafa ëppal ko dinañ am jafe waaye nag tamit eegaagut tamit foo xam ne dem na ba nga xam ne nguur munatut dara mm. jeex na déedéet eega eegaagut stage boobu noonu waaye nag sunu kees di ñëwee nii buñ moytu dina yow dina dina éega foofu noonu mm-hmm. waaye comme nu ma la ko waxee ñoo xam ne ñoom la euh, nguur di may pour ñu toog seen këri dina fekka ne def nañ sauvé boobu noonu dem nañ si place bi xool duñ bàyyi ku nekk rek because mm-hmm. ba tey kees yi dëggal a bari nañ waaye ba tey responsibility government la ak responsibility ministry of health pour ñu gis ne doomi Gambie am nañ wi wér comme wér gu yaram mhm. euh, comme ba léegi rek nu ma la ko waxee foog ñu folo yooyu noonu foog ñu nekk fa dëgg la euh, euh, ñu coo naka nit ñu coono moo gën a bari ci Gambie fii ñoo xam ne dañ néew doole mhm. ma waxee ko noonu waaye ba tey am na ci benn ñaar ñetta yoo xam ne Euh, seen doole antan na pour ñu mun a self isolate seen boppa dëgg la comme li nga mm-hmm. wax rek naam kenn ñaanut yàlla sa case bi si di gën di yokku mm-hmm. waaye man ni ma ko gisee ñaanu ma ko yàlla waaye xam naa ne case si di leen gën a yokku kon dafa mel ni yéen da ngeen war a gën a préparer naam hôtel yi sa seer na mm-hmm. waaye foogoo ne jot na pour nguur tamit seet feneen foo xam ne dinañ ko samp pour ñi nga xam ne naka ñu ngi amee feebar bi pour na leen a yóbbu si boobu béréb liy wax bi dem si kër gi moo warut waaw dem si kër gi moom <laughs> dafa warut because da am feebar boo xam ne day waale te the moment nga seen kooku noonu si këram rek mun na koo wàll ay njabootam mm-hmm. so weda um, um, naka la tuddaati symptômes bi mu fa oo nekku fa mm-hmm. yow danga nga war a nekk foo xam ne di nga fa nekk ba nga wér këng ñu mm-hmm. génne la foofu yóbbu la say njaboot foogaloo ne jot na nguur ñu seet feneen foo xam ne di dinañ ko sampa pour préparer seen bopp si feebari bas mu leen waaw euh, Linguère nguur gi tamit tooguñ euh, ñoom tamit di fi bu euh, coronavirus commencé ba tey ñu ngi si seeni plan ñu ngi si seeni doxalin euh, waaye euh, euh, comme nu ma la ko waxee rek ñu ngi toog strategic plan bu ñu nekk di defar boobu dinañ ko launch si lu bañ a yaaga soobee yàlla boobu mooy wane step si wala yoon yoo xam ne yooyu la nguur di jël pour su keesi open yi mhm. ñoom tamit ñu ngi xalaat boor boobu noonu xaalis buy dugg si hôtel yi bari na te nguur tamit bugut loolu spend xaalis bu bari boobu noonu ba tey fekk ñeneen ñi amuñ service suñ war a xool loolu tamit ñu ngi si région si ku nekk mu ngi xool local government tamit euh, ñu ngi xool noo xam ne euh, fexe bu ñooy jël ba nga xam ne ñëpp dinañ leen mun a amee képp koo xam ne am na doomi jàngoro bi duñ waxati kenn mu ñibbi si sa kër euh, dinañ am place buñ la téye waaye comme nu ma ko waxee rek coronavirus dafa ñëw nekkut lu lu lu bari la coronavirus change si àdduna bi du ma wax du ma du ma wax Gambia rek waaye ba pare euh, comme dafa dafa bett ñëpp kenn loo xam ne kenn euh, yaakaaru toon ne waa foogu toon ne dina am comme noonu moo am waaye bu ñëwee itam loo xam ne daf la betta bu ñëwee xam nga foog nga am doo mun a wax ne yëpp dina dem smooth comme nu ma ko waxee dëkk yu ñu uppa doole sax te na leen waxuma la Gambia fii so foog ñu euh, dina jël time waaye xam naa ne yàlla tere tere balaa kiisi di ñëw ba yokku ñaanuñ kiisi ñu yokku Eh, bu fexe yooyu noonu dina dina sotti ba nga xam ne nguur gi dinañ am place bu ñu téyee ñëpp bañ wér. incha allah léegi ki am feebari coronavirus ba wér. maanaam bi ñu ko testé ñu ne amoon na feebar bi dem ba si kanam ñu ne feebar bi gën na ci génn na ci moom ndax kooku daf dee mën a amaat feebari coronavirus. <laughs> waaw coronavirus nekkut loo xam ne euh, ci jamono gi si lu euh, euh, science scientist yi wone mooy ne du tere nga amaat ko di bari gis nañ koo xam ne ñoo xam ne dañ amoon coronavirus. Mhm. ñu wér ba tey ñu dellu si seen njabooti ba tey ñu amati coronavirus waat. dëgg la mhm, mhm. léegi naka jaaykat yi nga xam ne ñu ngi jaay si mbedd bi ay lekka lekka yoo xam ne comme ndéwo yeeg reer yooyu noonu. te xëy na nga yaakaar ne borom a ngi am feebari coronavirus ndax óor na pour nga jëndee si moom lekk <laughs> loolu bu dul coronavirus sax ku nekk dafa war a xool ci kan ngaa eh, jëndee jëndee lekk war mhm. ngaa xam eh, ci kan ngaa jëndee lekk war ngaa seetlu setaayi borom ak naka la borom mel balaa nga jënd ci lekka ci moom mm-hmm. especially si jamono coronavirus bi ba pare tamit euh, di nga gis euh, ñeneen ñi su fa police nekkul duñ sol duñ sol face mask mm-hmm. so yow mi dem jënd lekka nga gis ne borom solul face mask xamuloo borom naka la deme mm-hmm. foog naa ne sa xel warul laa may pour nga ñëw rek nga jënd lekka ci koo xam ne xamuloo ko si jamono euh, coronavirus buñ nekk ni am na solo ñaareeli pàcc bi na day nekk si yëppi max bi waaye balaa loolu rek bëgg naa laal laaj ndaxte jamono bii ñu toll nii koo ne dafa soj rek ñu ne la dafa corona ko ne dafa corona ñu ne la dafa soj soo mm-hmm. dama bëgg a xam ñaar ñi ndax benn leen déedéet déedéet du benn doo mën a gis nit rek nga ne ko ne dafa dafa corona borom mun naa soj fekka nekkut nekkut coronavirus borom mun naa ñaaka soj fekka mu ngi ànd ak coronavirus a ak coronavirus dégg la seen signs ak symptoms yi yëpp benn la mm-hmm. waaye comme nu ma ko dee waxee rek coronavirus duñ mun a xam ne am nga corona fekk borom tesut test bi rek mooy mun a wone ne borom am na coronavirus. dëgg la mhm. su ko defee mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon sa njëlbeen rek ne programme bi doon na programme boo xam ne. yow mi nga xam ne nag yaa ngi toog sa kër gi war ngaa mën a bokk si programme wala yow mi nga xam ne sa yaa ngi si trafic bi fexeel daal ba téléphone bi daal bu mu nekk di yëngatu rek su ko defee nga bokk si programme jigéen waxtaanee loolu nga xam ne nag mooy coronavirus yaa xam ne da nga bugg a wax ak président xam ne da nga bugg a bi wala danga nga bugg a ak askan gi sa lu jëm si feebari mbas mi le comme ni leen ko waxee woon rek joxe woon ne nomba bi di 519 3337 di ab nomba boo xam ne da see seen sa vidéo bu ndaw rek waxtaan ak askan gi am na ñoo xam ne nag macha allah def neen seen wàlla si bi la mbir su ko defee nag ñu ànd ak aadu booy rek mu àndil ñu boobu la mbir ñu seetaan ko. fi ñu toll nii lañ dimbale suñu bopp aar suñu bopp aar suñu askan aar suñu njaboot ak suñu waajur yi nga xam ne ñoo nekk si kër duñu fa xaar ñun ñi nga xam ne ñoo génn kat di uuti di indi nañ jëfandikoo suñu max yi di raxasu ak saabu ba set di raxasu ak saabu suñu loxo yi suñu xale suñu foyee suñu ñëwee ni raxas seen loxo yi bala ñuy lekk rek raxas seen loxo yi bala ñuy def dara nañ raxas seen loxo yi ak saabu wala ñuy use suñ jël yi dimbala suñ bopp te xam ne ko la na sangul ku ne rek sa taar la bugg dama koy duma tàyyi di ko wax saay su nekk ñu leen dimbala suñ bopp te jëfandikoo max yi dangay dox si mbedd gis nit ñaa ngi dox ñu leen neexee duñ takka max duñ def dara mel ni comme feebar amul si dëkk bi te feebar am na si bi de feebar bi dëgg la ne fexe ñu gëm ne feebar bi dëgg feebar bi am na ne leen dimbala suñ bopp te yàlla tax Aïssatou macha allah gana bu ñu jógee si kàddu askan gi nak ñu continuer programme jigen bi tay nak dama bëgg ñu waxtaanee li nga nak moy max am solo bi nga xam nak mom la am solo si askan gi su ko defee nga wax ñu tout rek si max yi nga xam ñu koy sol ok euh, jërëjëf euh, euh, euh max yi am nañ solo torop so gisé malila maxi la max yi am nañ solo moy ne dina la dina la dina la fanxa daal ba nga xam ne doo am jàngoro coronavirus. Mhm. ma jox la si exemple yu ndaw moo nekk ne eh, comme nu ma solee max nii xam nga doomi aadama bu ne booy wax nga xam ko nga ñàkk koo xam am na ndox yu ndaw yuy génn si sa gémmiñ gi comme ça tuflit yu ndaw nga gis ko nga ñàkk koo gis waaye dina am léegi doomi jàngoro coronavirus nag ci yooyu la topp ci foofu lay jógee léegi woo solut mas ma ñëw sori wante wuñ yàlla tere tereti ko maa ngi am doomi jàngoro gi maa ngi waxaa yow su ma waxee ak yow rek tuflit googu noonu bu demee dugg ci sa gémmiñ gi wala sa bakkani wala sa boti wàlla naa la doo doomi jàngoro coronavirus waaye da gis ne bu dee maa ngi sol masque su ma waxee bu dee maa ngi amee doomi jàngoro bi yëpp si masque bi moo am euh, du ma la ko mun a wàlla rawatina nag bu ma ko solee yow nga sol ko moo ne duñ waalante soo gisee ñu naan social distance wala sol leen max mooy ne max bi soo ko solee doo ndox yu ndaw yooyu di génn si sa gémmiñ gi yoo xam ne doomi jàngoro ci boobu lañ nekk du du la mun laal parce que euh, euh, coronavirus yi ñetti yoon rek la am pour dugg ci doomi si si si doomi aadama mhm. moo nekk ci gémmiñ gi ci bakken bi ak si bët bi ñetti ñetti yoon yooyu rek la mun a jaar amul feneen fu ma mun a jaar mam la affect si lu ñu euh, science wanagum jamono gii nii mhm. di nga gis ne boo koovee sa bakken bi nga koova sa gémmiñ ngi sa risque bi pour nga ah, nga ah, infect dafa dafa dafa wàññeeku te doomi aadama loxo mi nekk na loo xam ne foo ko gis mu ngi ci ci botam yeeg ci gémmiñ gi di laal mm-hmm. so di nga gis ne boo demee nga laal foo xam ne doomi jàngoro coronavirus bi mu ngi fa nga ñëw nga dugal sa baaraam bi si bakken bi yaa xam na nga xesenu wala yaa xam na wala nga def ko sa bëti loolu yëpp mm-hmm. foofu la doomi jàngoro bi di jaar ba dugg ci yara gi moo tax nga gis ne mas dafa am solo mm-hmm. especially bu ma ko solee nga sol ko du ma la waala doo ma waala. dëgg la la. am na solo mm-hmm. te defe naa maxi dafa bëri façon mm-hmm. ndax defe naa bii ñu sol nii kenn du ko fóot. déedéet. waaye am na si yoo xam ne di ko mën fóot. Mm-hmm. dama bëgg na wax ma bu dee bii ñu sol nii la. ñaata awas la war a mën a nekk ci yow. ak beneen bi nga xam ne dañ koy faral di fóot. boobu tamit kañ la ko borom war a mën a sol ak kañ la ko war a mën a génnee fóot. exactement euh, bi bu ma buñ sol nii euh, euh, lingeer boo ko solee. bu dee dama ko sol léegi sax ma si ma génnee ko ma ma teg ko place rek dama ko war a saani mm-hmm. léegi mun naa ko sol tami luy dem ba si seven hours su nekkee dama nekka comme si lopitaan bi di liggéey comme suñ noo suy liggéey mun nañ koy sol continue seven hours boo xam ne ñu ngi ko sol as long as génneewuloo ko nga teg ko foo xam ne doomi jàngoro mun na koo laal mm-hmm. boobu mun nga koo lifi waaye bu dee tamit sol nga ko five minutes sa nga génnee ko nga teg ko foo xam ne doomi jàngoro mun na koo laal danga ko war a saani waaw léegi soo demee yeneen fabrique maxi moo nekk suñu wax suñuy ñëw nii wala cotton yoo xam ne ñu ngi koo ñëw mhm. yooyu noonu tamit comme nu ma la ko waxee rek bu demee sa boobu xam nga danga mun nga koo yuusaat ko mun nga koo sol euh, euh, tey nga pare génnee ko nga fóot ko ba mbaa nga nga paase ko soo munee mhm. nga door ko solaat because yooyu mun nañ ko yuusaat moo tax ñuy wax niti pour ñu jëfoo yooyu noonu parce que eh, every time nga jënd benn max 25 dalasis mhm. nga di ko saani use ko saani foog naa nga jënd boo xam ne di nga ko mën a use soo paree nga fóot ko bam seet nga usaat ko foog naa loolu moo gën yooyu nag des na si noo ko use ba waaye toppatoo bi la rek mhm. ba tey ñaata eh, doo ko mun a sol nag lu passé whole day nga génnee ko mooy nekk bés bi yëpp nga sol benn max bi nga génnee teg ëllëg nga jëlati ko déedéet mhm. soo ko usee tey bés bi yëpp mais yaa ngi génn di dem liggéey soo ñëwee sax génnee foo xam ne yow kenn yaa fa nekk na nga ko lem ba nga xam ne ci biir gi di nga ko mun a teg soo paree nga solaat ko léegi soo ko solaatee boo demee ba nga éeg a kër nag sol nga ko bés bi yëpp di di sol mhm. soo éegee nga fóot ba mu set nga nga su nekkee am nga ñaar nga jël beneen su dul loolu ci guddi bi nga weer ko balaa suba parce que max dafa ndaw balaa suba dina fekk mu woo nga solaat sa max am na solo danga jamono bi ñu toll nag ni ñuy solee max doy na waar torop ndax am na koo xam dina ko sol bakkanam bi du muuru mhm. gémmiñ bi rek lay muuru wa ilaa mu sol ko loolu nga xam ne mooy max bi fii la koy def ci baat bi wala mu jël ko bàyyi ko si benn noppaam bi rek ngelaw bi di ko yëngal nu ko war ni mu ko war a yëngalee góróona bi di fa duggate du ko xam mu mm-hmm. jëlaat fixaat si kanamam bi mm-hmm. ñu itam loo leen di wax <laughs> ah, li ngeen loolu dafa nekk loo xam ne dafa ti man danaa wax ne dafa dafa daw yaram sax parce que euh, comme nu ma ko de waaye su ma yeneen programme bi Euh, face mask nañ ko indi pour mu jàppale ñu ba nga xam ne feebar e coronavirus du ñu da waaye buñ moytuwut nu ñoo jëfandikoo face mask gi mun nañoo indi loo xam ne leneen loo xam ne sax nekkut coronavirus euh, moo tax ba tey rek maay ñaax nit yi suma mbokki gambien si ba tey ñu jël bi ko ñeneen dañ koy sor rek bu ragal police waaw suñ gisut police rek génnee nañ tek wala wàccee nañ fii nii mhm. max bi nekkut pour euh, police yi max bi pour yow si sa boppa la léegi nooy fanxee sa boppa foog naa ne loolu ku nekk daf ko dafa mel ni ñu ñu bari ba tey sax gumaguñ ne coronavirus. dëgg la foofu laa bëggoon a ñëw sax ma la yàlla bëgg na yàlla dog mm-hmm. because waxoon naa ko programme bi passé nii mm-hmm. understand nga dafa am yoo xam ne yow waruloo xaar ministre bi amee wàllu wér gu yaram gi mu ñëw ne la defeel nii waruloo xaar nguur si boppam mu mm-hmm. ñëw dina defeel nii loo xam ne sa boppa ngay aar damay dugg a moto sax understand nga ku nekk jël mag sa wàccee soo soo gisee police bi ngay ñëw rek yow nga jël max boobu noonu nga laat soo mm-hmm. rombee police nga wàccee max boobu yow soo corona yee <laughs> police boobu dafaa ñëw sa kër te ba pare am na lingeer loo xam ne sax moo gën a daw yaram dama demoon eh, eh, radio programme ma génn jàng benn jàng mu ngi toog ñoo war a am next programme mu oma mu ne ma sista ma ne ko ne naam mu ne ma ne yaa ngi doon wax dama mënut a dugg si biir rek ma ne ko ah mu ne ma gis nga max yoo naa wax ni ma ne ah, mu ne ma ne taxi yaa ci gën a bon ma ne ko a ah, ci naka mu ne ma léegi xam nga driver yi dañ leen a bu nekkee ne ëpp nga koo xam ne solul max mhm. dañ laa tiye ñu caaj la ah, léegi driver yi lu ñoo def dañoo am seen ñaari max si seen biir moto soo ñaari max yooyu noonu booy buñ la buggee eb amuloo amuloo max ñu jël jox la nga sol booy wàcca nga teg ko fa bu keneen ñëwee mu mu sol déedéet kay ah ma ne ma ne man ci man <laughs> driver yi dëgg la ñoom ñu nge seet nu ñuy amee xaalis waaye dama foog ne doomi Gambie yi ñoo bugut seen boppa sax kay parce que su nekkee bugga sa boppa la yow max boo xam ne xamuloo ku ko sol taxi driver bi commencé daw depuis suba ba guddi xam nga ndax bu delloo kër sax foot na max boobu noonu footut ko yow nga jël max boobu ndig yow tamit faalewuloo comme luwaa yu nit yi teg dëgg nga jël max sor rek pour naa dem doxi suma soxla bi rek jeexa foog naa ne daal man ci man comme nu ko honorable si la de waxee mooy ne ku nekk da nga am cër si ah, réew mi eh, coronavirus bi du government rek moo am cër coronavirus bi ñëpp am cër ku nekk as a Gambian yow si sa bopp civilian ko xam ne eh, doomi Gambien nga rek am nga cër am nga lu la war ci coronavirus ci ngur door a ñëw te ba pare eh, balaa ngay mun a wax nit sa defuloo lu la war mm-hmm. na fekk yow li la yow li la war def nga ko ba mut soo defee li la war ba mut nga door a ñëw nga mun a bileem keneen waaye ngaay bileem te yow si sa boppa nekkuloo di def li la mm, war foog naa ne Gambien si ñun si suñ boppa war nañoo seetaat suñ boppa ñu wecci suñ jikko especially si affaire yi max bi max bi du pour président max bi du pour euh, gouverneur max bi si sa boppa la sa boppa nga nekk di fanxa daw na yaram trop boo gisee nit yi nu ñuy jëfandikoo max mi nga seetaat ko tamit ñuy jaay sax mm-hmm. because am nañ complain yooyu noonu nga gis kuy jaay masque ñëw kii ñëw nata emu ko mm-hmm. bii emu ma génnee deeloo nata beneen keneen ñëw nata nata léegi ñuy sol noonu bu dee yàlla tere am na ku am doomi jàngoro bi mm-hmm. ñuy ñëw di génnee di simi di sol di génnee di simi di sol yow si sa boppa yaa ngi expose nit yoo xam ne ñoom nga nekk di di di di di jaay max yooyu noonu soo moo tax ñun tamit suñ boppa war na nañoo bàyyi suñ xel ñu xool lu ñoo jënda buñ lu wax ne lu nekk dañuy xaar nguur ñëw defal ñu ko am na yoo xam ne ñun si suñ level mun nañ koo defal suñ bopp mun ngaa am sa musóor nga yóbbu ko si sa si sa ñawkat mu ñëwal la ñëwal ma mm-hmm. face nga jël fa dog ñëw sa face mask foog naa ne loolu moo gën a óor mhm. ngay dem foo gis masque jënda wala mhm. di nga gis ñeneen ni bu ñëwee teg seen xale yi jël kuy génn rek dëgg la jëlaal masque bi balaa ñu laa téye nga sol loolu toppatoo bi moo nekkagul si masque bi exactly ndax sama mhm. masque yi mun ngaa wàcca liggéey rek jël sa masque seet sànni ko fu la neex soo xamee ne yaa ngi war a liggéey wala yaa dem marché rek nga ne ma leen ma suma masque bi ñu ut a a ut ko si yëre tilim yi nga jëlee ko foofu rek ñëw solaat yaa ngi jox sa boppa loo xam ne sax dafay uppa coronavirus man nga naa di ko su ma ko waxee nit ñi di ree waaye jarul ree mm-hmm. gis nga coronavirus doom la de yaay ji ñëwagul de <laughs> ñëwagul waaw yaay ji ñëwagul de te suñu bàyyil suñu xel tamit dina doon mbir bu doy waar te ñi nga xam ne tamit dañuy faral sa su nekk comme ñu dee taxaw si féeri bi nag yàggul maa ngi jàll mhm. na ku fa taxawoon daf lay naan solal sa max yi sooy duga mhm. te moom si ma ne ko lii dafa doy waar yow yaa ngee digle sangul ma ne ko dangaa sa max yi su ko defee ñuy romba nga ne leen solal su ko defee ñu mën a sol mhm. waaye gis nga li la jigéen bi tontu mu ne ma yaa ngi mu ne ko ne yaa ngi wax ma sol sa max suma max bi te yow sololoo sa ma ne ko xam la ko wax police yi da macha allah seen liggéey rafet na trop ñu ngi koy mm-hmm. gis ah, rawatina su ñëwee nag si feebari mbas mi la waaye yeneen saa yi nga gis leen ñu taxaw si tali seen mag si ñu jël ko émale ko fii soo ne <laughs> ñoom seen a wone exemple bi mënuloo saay bu nekk naan ma sa ndax def nga ko ndax mm-hmm. a euh, ne euh, soo ko miinut dafay jafe si yow waaye euh, jamono ñëwee noonu foog naa ne nu ñu ñu fexe rek ba nga xam ne nu jamono ñëwee ñu toppa noonu ñu def ko parce que balaa mbas bi du ñëw kenn waxut kenn solal masque doo ko daan gis sa si biti even noos yi sax buñ ko solee fu ñëwee duñ génn ak moom waaye soo gisee ñëw ba nguur ne def na solal masque dafa re def ko forcé mm-hmm. dafa nekk ne rek eh, eh, jafe-jafe yu ñëw jafe-jafe boo xam ne suñ ko suñ ko toppatoowut ñu ñu fexe mu jeex léegi Euh, ñun ñëpp buñ moytuwut dinañ dinañ éega foo xam ne ñaanu ñaanuñ yàlla pour ñu pour ñu éega foofu noonu te ba pare euh, euh, xamaguñ sax ngay gis kees yaa ngi yokku di yokku everyday waaye xamaguñ mhm. ndax fii ba di next two months lan mooy xew so am mais bi am na ñuy dox ci dëkk bi ñu ngi am bas bi xamuloo ko so sol max bi nga fànq sa boppa ba nga ba nga ñàkk am feebar gi foog naa ne loolu waree si ku nekk la waa dëgg la kay léegi tamit ndaxte man wax dëgg yàlla comme man mhm. liggéey gi kër gi rek soo mhm. daanaka li may toog suma kër di research dafay bëri lool mhm. waaye gis naa ne si am na si dëkk yoo xam ne xam naa lii sax dinaa si ñëw bi ko saay su nekk damay jël suma loxo bi di ko teg si diggi mag bi fii te defe naa du yoon mhm. defe naa am na noo ko war a mën a téye dan saay bu nekk ngay jël loxo bi di ko teg <laughs> su ko defee comme li ma la doon am na dikk yoo xam ne ñoom dañuy ñëw ba sa biir kër mhm. ne la dañuy jaay mag mhm. soo ko solee fekk amna lu fa gars def nga daanu ñu rob la jël li ñuy jël yépp aw seen yoon dem naam exegul Gambia way foog na war nañ ko sóoraale parce que man légui duma tok fi di xaar bam dugga bir Gambia may so wax bala mo dugga bir Gambia lay wax légui limay xamal askan gi rek mooy képp ko xam tiyé na max ñew sa kër né la damay jé max solal nga sénda emna la bu ci dugga wa te hmm. koy gëndé ci mbédda bi soy daanu nga daanu ci mbédda bi am ñu lay gis bi wa ila nga dem marché jënda sa piis benn koota la sax yóbbu ko si ñawkat yi a óor ah, euh, wala sa musóor si këri sax am nañ suñ musóor yoo xam ne dog fa tuuti nga dem ñëw xam nga ñun jigéen dañ bugg a sa dañ bugg a maajal euh, mun ngaa jël sa piis bu ne bu dee am nga si musóor mhm. nga dog ñu ñëwal foog naa loolu moo a óor parce que aaduna euh, bi léegi dafa nekk ba pare buñ ko gisee si yeneen dëkk rek mhm. dinañ ko test fii parce que fu nekk la nit yu boni nekk foog naa daal ñu fexee ñu ñëwal ko suñ boppa loolu mhm. moo ñuy xaar ku wala di xaar ko ku ñëw di ñu ko may ah kay so bu si kenn duggal képp ku ñëw sa kër daal naan la maa ngi jaay mag solal seen na em na la loolu moom bu ko jéem a xalaat jëndee ko si mbedda bi wala nga dem si ñawkat yi ñu ñawal la su ko defee nag comme waxtaani max la ñuy te comme ni ma leen ko waxee rek war ngeen naa a bokk si biir programme bi ñu déglu ñi ah, ñu déglu kàddu askan gi ñoom li wax si max yi te waat si programme yi jigéen This is your brother Seni Sise from Sunjalaji. When I keep wearing your face mask when you are going in a public and maintain maintaining social distances moo ko ñaan yi ñoom ngeen def ko deful defalu leen ko seen boppa yéen ko defal ko ñëpp because yow soo génnee si bitim like nga am this virus when you come back home nanga ko jox ñoo dëkkaat yëpp soo kon tooñ nga ñëpp so it's better you just xam that in line with the given measures ñu ngi leen ko ñaan yi ñëpp are all Gambians also maa advice coming like the security personnels come like let them know that we are all brothers and sisters because they gonna they wanna wear face masks because we also have a like these asthma patients. So it doesn't mean that like they're not gonna feel like gonna order some mask because asthma patient without any paper or without any given document. So mooy loolu yow soo nekk asthma patient please maintain your social distance toogal sa génn soo war a génn nga génn loolu leen la mbokk yi gannaaw bu ñu jógee si kàddu askan gi su ko defee nag ñu continuer programme jigéen bi ak ki nga xam ne nag mooy Aysatu M Diallo su ko defee sato ma laaj la rek ñi nga xam ne gëmuñ ne feebar bi dafa am parce que man damay togg ay nit sa su nekk ba tey sax ñu ngi ma laa ñu ngi maa gumloo ne feebar bi ab politique la mhm. man nag jamono yi time boobu dama la daan wax ne comme soo ma mënut a andil beneen feebar boo xam ne uti naa coronavirus rek yow li ngay wax du ma ko gum mm-hmm. ndig soo ma ne coronavirus amut mm-hmm. danga maa andil li nga xam ne naka moo am comme nag mënuloo maa indil leen yow bàyyi ma rek ma gum suma coronavirus bi mm-hmm. jamono yi nag soo ma ne coronavirus moom politique la dama la naan political ba génn si coronavirus. waaw comme bu eh, feebar bi daal politique moo ko tax jóg. Mm-hmm. yow it politique rek ba rëcc si feebar bi. Mm-hmm. soo lan ngay wax ñi nga xam ne gëmuñu feebar bi. Ah, mooy ne ba tey foog naa ne léegi gis nañ enof euh, soo ko seetloo sa seen collègue bu nekk fii nii sax. koy ah, wax Eso eh, Ñaasi moom si boppam génn na wax. te nit yu bari génn nañ wax waaye dafa am ñoo xam ne léegi politique bi dafa dem ba muur seen i but. Mm-hmm. nekkaatuñ di gis waaye pour waxal euh, nit yooyu nag moom dina dina jafe. pour ah, génne leen ci. waaye ba tey euh, lu may ñaan rek ñoo xam ne dinañ déglu ni ñu ñoo dégloo xel bañ ñoo dégloo xol. Mhm. Euh, di xool lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy wax duñ tëb rek wax dara wala tëb rek euh, tëj booda. Mhm. ñu xool su doon ne Gambie fii rek la sax. mun ngaa wax ne politique la waaye lu dem ba tëj kaaba ñun ñëpp a jullit lañ ñaata millions nit mooy dem aji bii yoon nga gis ne benn juni nit rek te ñun ñëpp dafa fekk ñu dëkk foofu noonu loolu rek war na laa mun a wan ay nit feebar bi lu am la mhm. waaye ñeneen ñi na comme ni ma ko waxee politique baa leen muur waaye di ñaan yàlla rek yàlla bi ci seen xol ñu ubbi seen bëti ñu mun a gis lan moo xew ñoo xam ne gëm nañ ko tamit ma leen naa wax ñu jàpp ci bam mu loi yi nga xam ne yooyu la ministry of health tëral ñu toppal loi yooyu noonu ba nga xam ne feebar gi dëgg la ñëw na fi ba pare egsi na fi te nar na mel na ni lu jonkoon toogagut waaye ah. jonkoon na ci biir ah, eh, dëkk bi ah, ñu fexe ñu fexe ba jonkoon bu mu jonkoon noonu bu mu toog si suñ suñ dëkk bi ñu fexe nuñ ko nuñ ko génnee loolu laay ñaan suma mbokk yi dëgg la kay naam jamono bii ñu toll wax di gaane xel kilifa mm-hmm. bu fi gaañu rek ñu ne mm. coronavirus moo ko rey xaw ma nag loolu fu ñu ko teg mm-hmm. waaye dama bëgg nga xamal ma comme lim bi nga xam ne nag joxe nga ko fi mm-hmm. di junne ak ñetti téeméer ak lan juróom ñetti téeméer juróom ñaar fukk ak ñaar ñoo am feebari mbas mi soo dama bëgg a xam si lim boobu noonu nga joxe mm-hmm. ñan ñoo si gën a ëpp jigéen yi ndax góor yi waaw soo ko seetloo góor yi ci ci la gën a soo ko luy dem si junni ak juróom eh, ñetta fukka bi yëpp ay góor la mm. ñoo xam ne ñoo am coronavirus bi forty mooy fifty eh, eight percent eh, ñoo nekk ñoo xam ne góor lañ ñoo xam ne ñoo am coronavirus bi si jigéen ñi nag forty forty percent ba forty one percent bi yëpp loolu tamit ay jigéen la ñoo xam ne am nañ ci waaye man ba tey suñ waxee damay wax ne mm-hmm. yëpp jigéen yee ko am parce que coono gi yëpp ci jigéen ñi la ah, bu dee yow jigéen bi am ko sax waaye sa jëkkër am na ko coono bi ci kan la ñëw parce que si yow jigéen bi sa jëkkër buñ ko tegee benn place si ko fa yow jigéen bi yaay daw yow yaay jàpp kër gi yaay def lu nekka bu dee tamit yow jigéen bi tamit yaa am ba tey boo nekkee si treatment center bi sa sa xel bi yëpp mu ngi si sa doom yi mu ngi si sa kër gi soo coono coronavirus ñëwal na ku nekka mhm. waaye ci man damay wax ne ci jigéen ñi ci la ci la ci la gën a ñëw waaye si jamono gii nag góor ye gën a am coronavirus ci biir réew bi Gambie te góor yooyu yëpp tamit ndaw yee ci gën a bari. Mhm. cause ñu bari dañ waxoon ne corona ay mag la mooy jàpp. Mhm. juróom juróom fukki at jëm ci kaw du jàppa du jàppa xale waaye soo ko seetloo fii diggante 60 eh, eh, dem si suuf. kees yi Gambie yu gën a bari yëpp ñooñu noonu la coronavirus bi am soo seetloo kees yooyu noonu luy dem si si junni ak juróomi téeméer bi yëpp ak juróom ñeneen fukka bi yëpp ci diggante boobu la. Eh, so di nga gis ne mooy ne coronavirus bari na ci biir ndaw yi. Mhm. Eh, comme tamit ñuy wax ne ñu bari de maa ngi déglu radio ma dégg ko ne eh, nañ ñu baalal. ku fi dee ñu ne coronavirus moo la rey mhm. fekka nekkul loolu sa fekka borom mu ngi amoon beneen feebar mhm. mu ngi amoon high blood ak yooyu waaye comme nu ma ko waxee rek ñu bari dañuy déglu te duñ ñu dégloo xel xol lañ ñoo dégloo parce que bu du doon loolu man fooguma ne dina am kuy jóg sa ne ñi ngay deete kii dafa amoon euh, high blood wala dafa amoon euh, euh, diabetes léegi mu dee ñu naan corona moo ko rey buñ ñëwee wax nañ leen ne corona di am na dina jàpp ku ne waaye ñu muy gën a sonal ak ñu muy gaaw a sonal wala ñu muy gaaw a rey mooy ku am high blood ku am diabetes ku am asthma wala am feebari xool foog naa ne su ma la waxee loolu ba pare nga ñëw nag di gis ñoo xam ne ñoo amoon condition yooyu noonu ñuy gaañu ñu leen a test di wax ne eh, coronavirus da nga war a xalaat ne kon de ñii luñ ma doon wax moo nekk nii. Mm-hmm. waaye Gambien ñu bari eh, jàppee wuñ ko noonu dañuy wax ne ci fen lañ ne. Eh, ci politique lañ ne comme noo ko waxee waaye ba tey rek foog naa ne ñoo xam ne ñu ñu ngee déglu ñu ñoo déglu te dañuy dégloo xel dinañ gis ne luñ doon wax loolu moo nekk di ñëw mm-hmm. ba tey rek di gën a ñaan niti yow bu dee gëmuloo ko sax fexeel ba ca xale yoo am si kër gi wala ca mag eh, mag yoo am ci kër wala nit yoo am ci kër gi ñu am condition boobu noonu nga fexe ba nga aar ñooñu noonu boo ko du def ndig sa boppa sa mhm. nga def ko ndig ndig ndig ñooñu dëgg la man mhm. ba tey sa daf ma dee jaaxal xalaat boobu fan la ñëwee mhm. ndax léegi loo nga xam ne na nag mooy diabétis di feebari sukur am na fi kenn waxu ne yëfi politique la kenn laam-laamewu ko feebari HIV am na fi kenn laam-laamewu ko high blood yeeg ak yeneen feebar yi même bi si mujjee sa bi amoon bu àggoon bu emoon foofu sa séréer yoon Ibola ah Ibola Ibola mhm. ak malaria lii yëpp bu mu amee kenn weddiwu ko te kenn mhm. waxut ne politique la mhm. waaye man ba tey li may dee jaaxal mooy lan moo tax <laughs> coronavirus ñëw rek nit ñi ne politique la. Ah, man si suma booba <laughs> loolu loolu na ma. waaw loolu ay question boo xam ne daal war nañ koo ah, laaj askan gi. <laughs> te defe naa soxla si ay tontu. wallaay foog naa ne. waaw lan moo tax daal coronavirus ñu ne politique la. foog naa loolu yéen yéen journaliste léegi am ngeen soxla bëgg nañ daal ngeen dem si biti. waxtaan askan gi waaw. waaw ñu wax ñu lu tax gëmuñ coronavirus. ah kay because eh, ñeneen ñi dinañ kool sax di. suma benn eh, boy bu ma nekkal ci office bi. Eh, waaw mu ne kooku daf ko wax ne. corona gomuma waa lopitaan corona amul corona fen la. Mhm. kooku mu ko ah ko mu ne ko ah, foo dee dem. mu ko ne su ma feebaree lopitaan mu ne ko déedéet. léegi kay boo feebaree toogal sa kër <laughs> parce que di seen people yi soo demee ñu nekk di wax ak yow. soo de feebaree waa ñooy dem faj la. Ah, te léegi ñoo wax ne feebar bi am na yoo nga ne feebar boobu amut. waaye terewut boo feebaree di nga dem ci lopitaan. Ah, kay su ko defee ñu <laughs> bay la rek nga jaar noonu tàggatoo ay sat ni waxtu bi jeex na. ok di gërëm ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. di leen wa fàttali rek ba tey ñu jàpp ci lu euh, euh, WHO ak ministry of health euh, wax. Euh, ñu gën a euh, saxal sol max yi saxal raxas loxo gi saxal set gi si suñ njaboot gi ba pare di ñaan suma mbokki jigéen ñu téye seen xale yu ndaw yi ñoo xam ne ñooy génn a dem fu nekk coronavirus bàyyiwut kenn wut mag bàyyiwut xale euh, bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen soo di gën a ñaax suma moroomi jigéen yi rek ñu toppatoo njaboot gi ba nga xam ne feebari coronavirus bi dinañ ko daaxa ci biir Gambia Euh, yal na ko yàlla def ay satu jàllo yow it ñu ngi lay gërëm bu baax a baax bi na amee si programme yi jigéen saay bu ñu la soxlee rek nga ñëw pour xamal askan gi li nga xam ne nag moo nekk di dox si jamono bi kon nag ñu ngi lay gërëm foofu ngay nekk nag xam ne ne liggéey bi naam métti na lool diis na mm-hmm. lool waaye nag yéen na yàlla jiital te lu nekk tamit di ngeen ko dégg mm-hmm. waaye góom leen loolu nga xam ne nag mooy liggéey bi nga xam ne yéen a nga ci waaye mm-hmm. nag am na rumoos buy dem ne am na ay noos yoo xam ne ñu ngi bàyyi seen liggéey <laughs> waaw <laughs> loolu dégg la ñun tamit dégg nañ rumors waaye soo gisee rumors yooyu noonu yëpp am mooy nekk stigma buñ attaque ak discrimination bi moo nekk di comme euh, euh, nit feebar ngay daw feebar gi daal wala comme nu ko euh, English di waxee stigma wala ngay discriminate loolu noos yu bari ñu ngee jànkuwanteel ak jafe-jafe yooyu noonu si seen biir famille bi nekkut liggéey gi moo tax ñu koy def waaye famille gi luñ jël feebar gi stigmatise ko ba nga xam ne ku am feebar gi dañ lay daw wala nit yi naka lañ gisee feebar gi moo tax ñu bari di am préso si seen famille eh, famille yi ñu naan leen ne bàyyi liggéey wala resigner eh, because so amee feebar bi di nga ko indi si ci kër gi waaye foog naa ne authorities yu responsible moo nekk nursing association bi ak ñu demee noonu ñu ngi waxtaan ak eh, famille yi fexe ba xool ba nga xam ne loolu du am parce que feebar gi buñ ko buggee joxoñ rek di joxoñ ku am buñ ko commencé di def feebari yi joxoñ rek dina dina di loo loor ñu bari. dëgg la am na solo moo bi ma ko déggee ma ne déedéet loolu foogu ma ne ab noos dina ko def. Mhm. war a war sa réew. Mhm. si jamono bi ñu la soxlee ma ne déedéet loolu man dee gëmuma ko mhm. waaye yàlla na tamit bu mu doon dëgg su ko defee mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu gërëm kooku nga xam ne naka mooy Aïssatou em jaalo waaye di gërëm maam Cheikh bi nga xam ne naka moo nekkoon si wàllum caméra bi di gërëm kii nga xam ne tamit mooy euh, Moustapha ah moom it ñu koy gërëm bu baax a baax Mouhamed ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm kii nga xam ne tamit mooy Ah, ma bébé Youssouf di gërëm kooku nga xam ne mooy Christmas di gërëm kooku nga xam ne nag mooy bëj ah di gërëm kooku nga xam ne tamit mooy eso ñaas yi nga xam ne bokkoon na si programme yi jigéen bi ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm li mu wax si mbir mi nag indine bi moom am na solo lool ndax jigéen moom foo munti nekk rek dang koy namm ndax jigéen yi ñëpp xam ne de wax diggaa neex yàlla ay ndaanaan leen waaye nag du ma fi jógee mukk tee gërëm kii nga xam ne nag mooy suma doom saay bu nekk rek daf may faral di ñëw fekk fi ma toog de si bi di laa télé bi yaa booy kankurang la waaye tey moom maam seet ak may zoom rek ma ñëw won ko kankuram bi mu ngee ñëw ah Omar kankuram baa ngee ñëw <laughs> ko defee ñu tàggu leen ba beneen ajuma jërë ngeen jëf gis naa mi ñi ñoo di jàmbaar